partie de la classe politique lâcher euh, F24 lâcher le peuple autrement dit. Euh, non non ñi nekk F24 moom gëmuma ne dañu dem ñi nekkul vingt quatre nag moom ma leen dara mais ñi nekk F24. Hmm. gëm gëmuma ne dinañ dem ci loolu. Euh, li ma gëm mooy naqar bi dal Sénégalais yi moom moo nekk ci xolu politiciens yeeg société civile ak ñëpp. te naqar boobu toll na foo xam ne Macky Sall moom des euh, fi naan day élection day organiser ay élection après le 4 avril loolu moom xel daju ko donc ñun lim en tout cas ñi ñu waxtaanagul yëpp ñoom loolu la ñu jàpp 3 avril moom Macky Sall jeexal na ci présidence république maintenant bu ñu organiser élection après moom bokk ci euh, te du am lu mu ci dogal loo xam ne na tax mu de mu mu yàq élection yi. jërëjëf Mamadou Mbodj ñu ngi lay gërëm. gërëm seen jërëjëf ñun ñëpp euh, jàmm la ñuy ñaan ci Sénégal Cheikh ñoo ko déggandoo donc c'était le f le coordonnateur euh, précisément Mamadou Mbodj mu wax ci euh, li nga xam ne moom la ñu nar à partir du 3 avril ils ne reconnaîtront plus le président Macky Sall comme président du Sénégal mu mel ni ni mu ko waxee réew maa ngi jëm ci jaxasoo parce que peut-être attitude sénégalais yi la majorité démb jaaxal na ñu bëri mais analyser aussi si benn angle da nga koy comprendre attitude yenn homme politique yi aussi franchement euh, euh, ça ça étonne ça surprend mm. mais euh, ba tey on prend acte et je pense que man le peuple sénégalais aura le dernier mot loolu j'en suis convaincu parce que Cheikh on a vu Yaya Jammeh en Gambie on a vu d'autres tyrans ailleurs mais comment ils ont fini comment ils ont terminé leur le règne comment ils ont terminé franchement seen euh, dictature yi nekkoon ak seen askan je pense que yooyu quand même ça doit servir de leçon xam naa ne foofu la ñuy tëjee nga waaw xam nga dañu am benn président bi nga xamante ni président Macky Sall ndeysaan moo tax gis nga nit looy wax rek na fekk nga gëm ko président Macky bi mu toogee au niveau de la Gambie il y a eu une élection présidentielle mm-hmm. Adama Barrow est sorti vainqueur ba Yaya Jammeh jot ko félicité quelques jours après il est revenu sur sa décision mm-hmm. ou quelques heures après mais qui a commandité mm-hmm. n'est-ce pas euh, euh, l'envoi d'une force militaire mm. n'est-ce pas sous euh, la bannière de la CEDEAO pour ñu dem mm-hmm. déloger ki nga xamante ni mooy euh, le président ga l'ex l'ancien ou l'ex-président ah, gambien Yaya Jammeh kan moo def loolu c'est le président Macky Sall c'est le président Macky Sall qui a demandé n'est-ce pas à ce des élections libres et transparentes au niveau n'est-ce pas du Mali bi nga xamante ni quand ils étaient euh, dans situation où le Mali était en train d'être divisé son territoire euh, euh, quand même menacé des groupuscules ou bien des groupes terroristes n'est-ce pas di établir foofu noonu di di di di mënal kaw ñu gis ne président Macky bokk na n'est-ce pas moom ak ñooñam waa CEDEAO ñu doon ne dañuy sanctionner n'est-ce pas ki nga xamante ni mooy Assimi Goïta ginnaaw bi nga xamante ni ni wu jox nañ ko benn calendrier ni pour mu organiser élection mm-hmm. donc ñu gis ne ni euh, quand foofu euh, Mali dëkk la woon boo xamante ni euh, ba léegi sax dëkk la boo xamante ni dafa am ay ay jafe-jafe mais quand bien même am na président Macky sa laaj na nest pas en tout cas bokk na si ñi nga xamante ni ñoo taxawoon ne nañu def élection mm-hmm. ñu la junte jël le pouvoir n'est-ce pas uh-huh. euh, Mamadi Doumbouya ak ak i ñooñam mais gis nañu CEDEAO à travers aussi n'est-ce pas euh, euh, le concours de du président Macky Sall ils ont demandé à ce qu'il y des élections ba pare ñu ne li ñu fixé ne leen nest pas la durée de la transition warul yàgg uh-huh. ñooñu ne leen mënuñu organiser quand lan la ñu menacé ils ont menacé de de mener des sanctions contre ces pays la on a vu <laughs> au Niger ce qui s'est passé là-bas léegi nag loolu yëpp président Macky Sall moo ko def moom moo ne lu mu metti metti metti ak lu mu jafe jafe jafe le calendrier républicain ne doit pas être n'est-ce euh, comment dirais-je euh, ne doit euh, euh, nan lañ koy waxee ne doit pas républicain. voilà doit être respecté moom moo ko wax léegi nag. xam nga dëkk yooyu yëpp ay am jafe la dëkk yu nekk en situation de crise mm-hmm. ñun mm -hmm. on dans un pays où il de crise la seule crise qui existe au niveau de l'APR uh-huh. APR moo am crise interne depuis que le président euh, Macky Sall a choisi son dauphin ñoom ñoo am crise uh-huh. et bon ça c'est leur euh, c'est leur cuisine interne uh-huh. ça ne regarde pas les Sénégalais s'ils sont pas contents ils n'ont qu'à aller convoquer je sais pas euh, euh, une réunion au niveau du siège là ils n'ont qu'à se disputer c'est leur affaire je, je prends cet appel de Mamadou Mbodj peut-être mm. qu'il a qu'il va ajouter ah d'accord peut-être dama yaakaaroon dafa am lu mu ci bëgg a dolli. donc euh, ñu gis na ni euh, euh, la seule crise qui existe c'est au niveau de l'APR. Mm-hmm. l'autre crise qui existe. Mm-hmm. mais bon c'est au niveau de du Parti démocratique sénégalais. qui n'a pas su n'est-ce pas avoir encore une fois un pré un candidat à la deuxième élection présidentielle bi nga xam ne waroon nañ ko tëgg li nga xamante ne mooy le vingt cinq février. Mm-hmm. donc lii lépp seeni coobare bopp la. seen négligence la seeni manœuvre la seeni manipulation la mhm. donc ba mu yegg ci mbir mi nga xamante ne léegi ñu yeewu di tuumal le conseil constitutionnel mhm. sur la base encore de soupçons yi nga xamante qui son pas encore établis la vérité quand mooy loolu na sénégalais yépp xam ne ni mhm. jusqu'à preuve du contraire ba fi ñuy wax nii parti démocratique sénégalais tegul dara ci table bi y a pas de preuve les gens sont en train de légiférer en se basant sur des soupçons da ngay déglu assemblée ñu lay ne parti Sénégal parti démocrate sénégalais na fexe ba mu teg ay preuve ci table bi. Mm-hmm. bu jotee mais c'est mais peut-être que c'est à l'assemblée qu'il fallait au moins. mais commission d'enquête bi ay preuve waroon tax mu taxaw. donc amul preuve soupçon la ñu nar a toppee ay ñi nga xamante ni mooy euh, nu mu tudd euh, le haut conseil constitutionnel. Mm-hmm. le conseil constitutionnel. conseil dugal na plainte à travers euh, le magistrat Cheikh Ndiaye. gis nañu bon procureur on l'attend peut-être il va pas se saisir il va pas s'autosaisir il va rien faire en tout cas il a été saisi même d'ailleurs ah. mais il va pas peut-être diligenter peut-être dans six mois <laughs> ah Fatou parce que nee nañu action judiciaire bu amee mooy commission bi nërmeelu na mhm. du loolu la ñu wax donc bu dee loolu la donc ça veut dire que. mais parce que bëgguñu bëgguñu commission bi taxaw. waaw le procureur ça veut dire que dans six mois. la commission peut-être ne va rien dire ou bien la commission va attendre sauf ils vont faire peut-être une commission d'enquête fast track peut-être que dans un mois ils vont nous dire qu'ils ont fini parce que en cas la date limite c'est six mois mais peut-être que euh, en un mois ils vont sortir un document. mën leen yokkal comme léegi assemblée. waaw mooy yokk mooy wàññi. bu d'accord aussi yokk beeg wàññi bi la gendarmerie vient te mettre dehors. Mm-hmm. Euh, am seen majorité def ko sans débat. une majorité mécanique il faut s'attendre à tout. tout donc daal mbir mi daal faatu tey réew mi toll tey. waaw il faut s'attendre à tout. tout. Mm-hmm. Euh, te encore une fois euh, comme ni ko euh, Mamadou Mbodj waxee aussi c'est mm-hmm. c'est c'est quand même bon pour le moment les gens sont un peu pris de court. Mm-hmm. parce que président Macky Sall nee naa les Sénégalais dañ ko doon may. dañ ko doon jox une certaine un certain un certain crédit à chaque fois. dañu ne ah. mën na ko def mais non du ko def toujours dañu am am na jomb jomb. bi nga xamante ne Sénégalais ñu ngi ko doon xaar si président Macky Sall dañu ne non no c'est vrai sañ sañ na mais sañul lii. Mm. mais malheureusement président Macky Sall il a il a il euh, nan lañ ko waxee il a déjoué tous les pronostics. yoo yaakaaree ne fii la yem mu jéggi ko. donc malheureusement même ceux de son camp certains mhm. sont même sont sont même carrément euh, parce que a on a vu quand démission yi am après Abdoulaye waaw mais démission yi aussi qui mi nga xam ne moom tamit tekki na ndombal tànkam. mais euh, mais Abdou Latif Coulibaly nag par contre man sa démission euh, ça m'a fait sourire <laughs> parce que xam nga ni li mu ko lay taayee dafa oyof dafa ne. il veut retrouver une certaine liberté donc pendant ces douze ans il avait aliéné sa liberté alors un intellectuel de la trempe de Abdou Latif Coulibaly un journaliste de la trempe de Abdou Latif Coulibaly nangu un écrivain de la trempe de Abdou Latif Coulibaly nangu aliéné sa liberté pendant douze ans ça veut dire que cet homme est capable de tout non man je me dis man une seule minute je ne voudrais pas dans ma vie une seule seconde aliéner ma liberté mais lui il l'a fait pendant douze ans mais il dit qu'il veut retrouver un semblant de liberté. parce que son frère est accusé. parce que son frère est accusé donc dans ce pays là c'est seulement quand nos intérêts sont menacés n'est-ce pas qu'on s'arme n'est-ce pas pour faire face donc l'intérêt général n'est-ce pas cela ne nous regarde pas c'est des intérêts n'est-ce pas crypto yooyu noonu intéressé parce que son frère est cité dans une affaire et il pense que c'est c'est leur honorabilité qui est menacée il va se battre tant pis il n'a qu'à se battre mais oh, qu'il sache que qu'il se bat pas pour le peuple sénégalais parce que de, depuis douze ans il est resté silencieux sur les situations n'est-ce pas sur les misères qu'on a fait vivre au peuple sénégalais Abdou Latif Coulibaly n'a pas n'a pipé mot pour défendre le peuple sénégalais défendre la jeunesse sénégalaise qui s'est fait massacrer entre 2021 et 2023 mosu si àddu donc il veut retrouver une semblant un semblant de liberté n'est-ce pas euh, mais bon on va toujours voir bon tant mieux pour lui ou tant pis en tout cas qu'il sache que il parle pas au nom du peuple léegi nag comme on dit mieux vaut que jamais bon peut-être bon moom il va peut-être avoir la conscience tranquille peut-être d'avoir euh, pris le soin de partir mais je pense qu'il a raté nest pas son départ mm. c'est bien ah. avant qu'il fallait partir parce qu'il a eu des y a eu des ah. situations dans ce pays-là tellement difficiles waaw yu ko jaroon mu génn dem yoonam donc euh, voilà ba pare dégguñu ko benn yoon mu noppi aujourd'hui toutes ces voix discordantes benn Eva Marie Coll à la limite je peux comprendre je peux comprendre moom peut-être voilà euh, elle n'était pas trop mêlée euh, à certaines choses et cetera donc. Euh,